vacances agricoles patriotiques ci Sénégal te parti Pastef jiite ko Comme du Bambilor de ci gannaaw benn yoon nak le won la woon ruuj ak bonga tool boobu nga xamanteni bi eh, ci entre en face cité CDC eh, le neke gannaaw nak ba tracteur ba jeqi xam ngeen ni vacances agricoles mbokk yi eh, li tax a jóg na ci fexé ba ci ci pandaw inshallah rabbi mu nek contribution ci souveraineté alimentaire te ñor l'ol président Diomaye Jahar Fay ak premier ministre di Ousmane euh, Sonko bu jëkkoon nag xam ngeen ni motiver askan wi la woon waaye nag tey jile évidemment on accélère la cadence la ñu wax Ousmane Rougui Sow di coordonnateur adjoint Pastef commune Bambilor ne li ñu ne sër bu soobee kiy maye moo di cellule bu nekk euh, ci euh, parti bi d'a di am toolu boppam euh, ndax mu gën a yaatu tey ñaax nag état Sénégal mu def kemtalaay katanam, ci ay moyens be lépp mën jëm kanam Abibouba, représenté magi pasteur yi di ñaax jeunes yi ñu gëna a suubu ci liggéey bi ndax nag bi baña nax say dafe euh, bokku ci organisation Pastef ne nak bëgg na lool ci jàppale Ousmane Rogi Sow ak ki nga xam ne moo di Moustapha Seck Sonko ba ñoom ñu mën a bàyyi ginnaaw seen soxla daal di suubu euh, ci euh, liggéey bile Moustapha Seck Sonko mooy coordinateur communal Pastef ci commune du Bambilor ne nag ñan nañu yàlla ñoom ñëpp day ci kattanam moom yàlla la euh, président Diomaye Diakhar fay ak ki nga xam ne moo di premier ministre Ousmane Sonko bis ñu doxantu euh, ba ñëw nimmiku seen tool bi ndax loolu dala leen ñaax ba ñu gën a indi jom ak Pastef madame Guèye Fatou Thiam di coordonnatrice Mujib euh, commune Bambilor rafetlu na lool moom itam lool sax taxawaay bu amul sikki sàkk ci bis bu am solo bile ñoom ñëpp nag ñu daal di teewlu seen kàddu ci micro Bambilor Actu asalaamaaleykum waa commune Bambilor euh, Assalamu alaikum département donc nous ngi nuyu euh, suñu Nous internet euh, Bambilor Actu tey ngi si Bambilor si le commune Pastef bu Bambilor si dans le cadre vacances patriotiques bi nga xamantene agricole bi euh, pour que ñu top li président Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Faye euh, euh kenn ku ne xamna euh Sénégal wala Afrique euh avancer te dundewuñu li nga xamantene ne euh, moy ci mbéy mi ndax tànk dundewuñu bayuñu li nga xamante ne moom la ñuy dundee euh, dëkk bi dina metti trop si ñun parfaitement loolu la loolu la ñu comprendre moo tax ñu bëgg jeunes yëpp dugg ci mbay fii nag euh, ren lañ koy euh, initier fii ci Bambilor parce que dëgg la daan nañ ko def at yu at yi passé muy section communale bi daan nañ ko def fi ko mujjee def rek mooy fële ca Ndoyeen mais fii ci village yu Bambilor Euh, ren lañ ko fi njëkk a def euh, di kontaan bu baax nag ndax euh, ren GPS wu département bu Rufisque ñoom am nañ tool fii ci mbaam fii ci Bambilor tamit section communal bi ut nañ fi terrain bu 4 hectares jël nañu ay tracteurs ñu def labourage bi ba pare li des mooy dañuy xaar rek mu taw pour que ñu mën a commencer travaux yi. Euh, di kontaan bu baax nag si jigéen ñi mooy euh, jigéen ñi nga xamante ne dañoo ñëw fii jàpp ci liggéey bi kontaan tamit ci euh, magi Pastef yi ñi nga xamante ne waxuma la tool bi sax ñoom ñoo ko joxe mais ba pare ñëw jàpp ci liggéey bi kontaan bu baax tamit ci patriote yi nga xamante ne jóge nañ fépp ci commune Bambilor ñëw jàpp ci liggéey bi te incha allah ñoo ngi ñaan yàlla objectif bi mooy déwén cellule bu ne ci commune Bambilor cellule bu ne mën am toolam ndax euh, loolu le gouvernement bi woote loolu la ñu comprendre euh, ndax jeunesse bi il faut que ñu dellu ci mbéy mi il faut que ñu xam importance su mbéy il faut que ñoom ñëpp ñu dugal ci seen loxo mag ñi dugal ci seen loxo ñëpp dugal ci seen loxo pour que Sénégal bi nga xamante ne euh, moom la ñu bëgg dem ba ñun li nga xamantene mom lañuy dundé ñukoy dundee bayal suñu bop loolu pour ñu mëna atteindre objectif bobu il faut que ñëpp duggal ci seen loxo euh di profiter tamit de l'occasion di euh, vraiment d'ici di def un appel ci état bi ñi nga xamantene ñom ñoo woté projet bi dañoo bëgg a ñom ñu gën ci manam sóobu manam gën a moy mooy les gros moyens pour que euh, exiger tout le monde ñëpp pour que nous ayons un résultat positif. Nous avons fait le projet bi vraiment projet bi euh, projet bu sénégalais dans le donc nous euh, ferons ba bu 4 hectares 5 5 hectares ah, di bëgg nak def fi fi ñebbe donc euh, juste c'est pour vacances vacance euh, agricole bu commune bi moo tax mu jóg lii nak ñu ngi ñu ngi gëna ñu ngi gëna prêter attention puis suñu suñu autorité yi que Sénégal mënta dem sans autosuffisance donc euh, jeunesse bi jóg nañu pour mën pour mën relever défi bobu bu ëllëgé ah ñu xamné zone bi ñu dëkk fi muy Bambilor ñun bay lañu xam ah ñu gëna a gënné moyens yi set nan la le souf de projet bi yalla def projet bi réussir Sénégal am autosuffisance Il phase test la rek commune de Bambilor dafa commune bo xam dafa organisé wu euh, dafa am euh, mag Pastef organisation domaine am ñu man côté organisation moo tax euh, lii nii nekk tollu yomb parce que xam nga jot moo yomb euh, moo amatul waaye nit yi ak ànd ak ñàkk jot yëpp gars yi sacrifié na ñoom ñëpp ñëw ñëw ñëpp jàpp boole suñu doole pour liggéey li nga xam ne mooy 4 hectares yi tey nekkatul yomb ndax dafa laaj moyen dafa laaj moyen financier laaj na lépp mais di sant yàlla bu baax parce que am na ñi xam ñëw fii ñoo ngi si jàpp baax ku si mel ni Ousmane Rougui Sow euh, ak ki mel ni Seck Moussonko gis nañ tan taxawaay Euh, vraiment nek na xam te yombal nañu organisation bi parce que ñun ak ne lepp lo gis rek dañu na organisation tay ñun euh, passef dafa am no xam te ne noonu la ñuy projet bi Ousmane Sonko woote dafa nek projet bi ñun ñëpp ñoo si gis suñu bop ba tax na ñun ñëpp dañuy ba suñu occupation ñëw def suñu man man suñu xam-xam suñu xalaat suñu lepp pour rek projet bi jëm kan ndax li bu réussir té nek un bon exemple pour toute l'Afrique c'est pour cela ñun ak nii dañoo xam ne lii défi la comme sàng ni ko suñu concitoyens yi waxee léegi défi boo xam te ne est à travers le monde parce que tey Guy Marius Sagna gis nañ liggéey bu mu nekk di liggéey au niveau de CEDEAO yaa ngi rek kon Sénégal lii day nekk loo xam te ne euh, message lay lancé boo xam ne si à travers le monde donc loolu moo tax ñun ñëpp ñu jàpp si euh, xam ne lii liggéey ñëpp la c' est pour rek Sénégal mën a jëm kanam waaw parce que Sénégal am nañ lépp am nañu suuf am nañ ay techniciens bépp laaj domaine boo laaj am na fi ku si mel ni man maa ngi yëngu si wàllu industrie ñeneen ñi ñu ngi wàcc si agricole mais ñu ñëpp dañoo boole suñu doole pour rek mën a euh, réussir projet bi. Divane fi ñu toll nii toll la ci benn toolu passif yi nga xam ne yaa gën a am muy depuis 2019 ba 2022 ba 2024 bi ñu nekk kon c'est pas la première fois ñu ci dugg kon terrain bi bu doon terrain bu ñu dugg ñu ne maîtrise nañ ko bu baax yàgg nañ ci quoi. mais di jaajëfal le président Ousmane Sonko premier ministre ak président Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne ñooy doxal projet bi jamono bi ñu fekk si leen ci loolu wuy bi ñu wuy si wuy ci président de la république wuyu si premier ministre la après ko ci vote bi vote bi dañoo bëgg mu wuteeg vote yi daan dañoo bëgg mu doon vote ba développement lay nekk pour Sénégal lépp mais pas loo xam ni day nekk loo xam ni dañuy motiver nit ñi kese bu njëkk motivation la nekkoon pour nit ñi dem ci tool yi bay mais dépassé motivation léegi dañoo gouverner di doxal doxal boobu ñu doxal ma dafa war a wuuteeg li amoon yaa dem mooy bëri mu ngi suñu tey opportunité yu bëri mu ngi suñu kanam kon dañoo bëgg tool bi mu nekk tool boo xam ne nii président Diomaye dafay doxal boppam ba yegg si fi ministre agricole dafay dox ba yegg si fi premier ministre day dox ba yegg si fi ñu xam ne lii c'est Sénégal libre après quoi di woo le coordonnateur département aussi ak section communale li nga xam ne lii suñu yëf la ñun ñëpp sur entité yi nga xam ñu nekk ci biir section communale bi la MOSIP muy jigéen Pastef euh, CPS muy Jeunesse Patriotique du Sénégal rawat na bu section communale bi euh, magi passif, comme ñu ko waxee aussi ñu fi nekkoon sànq ak entité yi nga xam ñu fi yëpp ci biir commune bi moo dap am na ñu fi nekk représenté leen fii muy Sidi Kebe bi kon ñu ngi leen di woo ñu ñëm ñëw ci tool bi wàcc si pour bay si li ñu am yéene bay ko fi ne comme ko waxee sànq mooy gerte la ak euh, mboq ak ñebbe variété yi tax ñu tànn ko fii tamit mooy yi tax ñu tànn ñetti variété yi fii ba tey bokk na ci mooy suuf bi ñu nekk dafa méngoo lu mel noonu te booy ji da ngay ji foo xam ni loo méngoo na li nga bëgg bay après quoi kon nag bi ni ma ko waxee sax bëgg nañ ma wuteeg li amoon mais di wax ne ñu ngi woo ñëpp bàyyi ñu kenn baam loolu ñu ngi woo ñëpp bàyyi ñu kenn mais bëgg nañ saa su ne bu ñu wootee nit ñëw fees tool bi li ñu fa a liggéey ñu liggéey ko aussi ñu xam ne WAP bi goyoon du WAP pour lancement pour lancer pour nit ñi xam pour yëg dañuy woote pour ñu wàcc parce que boo xoolee tool bii en 2019 wuti naa tool bi amoon Gorom 2 bi amoon 22 2022 te bi amoon euh, Ndoyeen wuti naag parce que li ko waral dañ ko gën a wàcc li ko waral dañ ko gën a jekku fii accessible na placé na jekku nañ suuf si lépp déjà quoi kon mbay mi mbay bu ñu jekku la buñ waajal la bu baax a baax a baax a baax kon man li may mujjee tëj sama message rek mooy di wasale ko ñu dellu ci mbay mi te état dem génne mooy pour doole leen pour ñu wuy ci mbay mi ko am sa suufu baay wala sa suufu maam état na ko doole ci semence muy jiw na ko doole bu ñuy béyee ba pare bay ko jëndal ko jiw gerteem wala lépp lu mu bay ci prix bu baax ba pare teel ko ko jëndal parce que baykat li mu soxla ko jàppale mu mën am suuf la. parce que nag bul fàtte baykat bi ngénteem ak ceeb ak lépp daf ay ci muy bay comme kii liggéey di fayeku weer ni mu aajowoo ci loolu ni la aajowoo ci loolu kon loolu la ñuy wax président doole nañ ci loolu. gis ne ministre bi nag muy wër jamono bi dugg fi Sénégal fu bëree bëri ñu ngi ko ci na ko wóor ni fi muy dem fii ci la bokk fi ñu ko doon xaar fii ci la bokk te fii dafay war a ci ndax lii mbay mi ay nit ñoo ko seq ñoo xam ne ku ne sa doole lañ jël boole président ñu ngi koy waxal loolu di ko premier ministre di ko ministre agricole ñu bàyyi ci xel bu baax a baax jaajëf waa Bambilor yëpp muy jigéen ñi CPS bi muy mu jigéen ñi MOSIP bi muy CPS bi service patriotique bi muy mag Pastef muy MODAP mu entité yi fi muy mocap am nañu fi nekk instant bi muy monap am nañu monap ñu ngi leen di jaajëfal ñoom a baax bu tool bi sottee yàlla ci loxoom la ko jaarale parce que dafa am tool ñu joxoon ñu dem ba war am na ay moyam pour financer pour liggéey liggéeyam mais loolu sant yàlla la te ñu dem di béy kon kon ñu ngi jaajëfal surtout ma nga passé tontu abi ñu jox tool bi ñu faree fi moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te da parce que dafa dafa lu am solo ci biir tool boobu bi ñu ko joxee ki moom te dañ ne ko koy ji jiwaalal ko bay bayaalal ko toolam parce que nit bu la defalee njëkk da nga koy fay njëkk waal jasawul isaan ilal isaan ñi jàng di nga naan lool la ñuy wax ko yàlla moom boo ko defee rafet la defal ah kon loolu la ñuy fayee borom tool moom itam bu baax a baax di lu vraiment teewaay mojib bi ci lancement wu VAP bi ñu nga xam ne tey jii lañ ko oh, tàmbale di ñaan uh, yal na yàlla may ñu ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahiim eggale ko ci alhamdulilah rabi alamin suñu borom def si barke def si taw tawféex rek yàlla def ci muur waaw ñi ngi sant nag uh, jigéenu bi yëpp ñi teew ak ñi buggoon a teew ti teewuñu parce que teew chaque jour yàlla rek moo ko mën subhaanahu wa taala liggéey bi tey macha allah uh, commencé na depuis démb démb la ñu labouré bi tey nag ñun suñ teewaay tey la tey bi ñu ñëwee bon bokk nañ ci lu settali for euh, bant yi nga xam ne moo pour moi ko euh, pour moytu vraiment euh, mala yi nga xamné nak yi nga xamné ñom ñoo dugg voilà ginnaaw ci lool nak préparer nañ le petit déjeuner ensuite jël nañ pause voilà donc d'une manière générale dal japp nañ ci liguey bi voilà di ñaan rek euh, yàlla na yëpp yomb incha allahu rabbi doomu aadama di yéene dong la am waaye nag yàlla subhaanahu wa taala yaa malikal mulk moom mooy yëggale yaa tabaraka wa taala moom nga xam ni lépp lu am moom la yal na yàlla ba nga tas sunu yaakaar ba tool bii ñu ne ah suba wala gannaaw suba la ñuy dem daal di koy góob